mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñoo fii ci diwaanu Golf Sud nga xam ne président Ousmane Sonko daf fi ñëw ngir seet si la la mairesse de Golf Sud bi Khadija Mahécor Diouf ñu waxtaan fi waxtaan bu am solo bi ngeen mën a dégg Golf moo ngi nii xam nga Ousmane Sonko moom fépp mu jaar rek xale yi topp ko Diallo su fi nekkoon ne leen ku mën na def. waaw fii mooy golf sud Ousmane Sonko seeti woon la maire de golf la mairesse boog Khadija Mahécor Diouf ngir ñëw seq waxtaan bu am solo mu ñëw seeti fii golf sud nu mu def naka la travaux mairie di avancer mbokk yi comme ni ngeen ko gisee fii golf sud comment def population yi ci yi ñu di topp oto yi euh, benn dynamique en tant que maire de la ville de Ziguinchor di dox di dox ay doxu ay collègues am maire waxtaan ak ñoom ci yenn mbir doxalin yi nga xamante ne mën na leen servir waxtaan ci commune mën a waxtaan ak ñoom ngir ñu mën i ñoom lépp loo xamante ne def nañ ko mu am na njëriñ askan wi moom ne xamal ne tey mbir bii mu tàmbali nag du si am xàjj ak seen bépp maire boo xamante ne. pare nga pour accueillir ko rek moo xam foo mënti bokk dina ñëw seet si la waxtaan ak yow ngir li nga xamante ne moom mooy partage d'expérience boobu loolu am ama am solo le président Ousmane Sonko tamit bi ñu déggee ci kàddoom bi ñuy wax bi wax naan bu politique jotee na ku nekk politique ku nekk xam ne na jógee sa bopp gën waaye bu liggéey jotee na ñëpp liggéey fàtte seen i appartenance politique mooy lu ama ama am solo mooy loo xamante ne nag marque bu mag la ci li nga xamante ne moom mooy leader mu doon la nga xamante ne expérimenté na ko Ziguinchor gannaaw bañ ko falee mu am taxawaay boo xamante ne bu am solo la ba mu ñëwee xàmmeewul ku bokk fii wala ku nga mooy nit lan mooy ay compétence lan lay liggéey kon loolu mu woo si bépp maire ba nga xamante ne yow askan wi moo la fal gannaaw la askan wi falee nga nekk ci ngir askan wi am taxawaayu ndey ji seet boot ñëpp ànd ak ñëpp liggéey waaye bu politique jotee ku nekk xam na muy tojee la nga xamante ne moom mooy bopp boppu gannaaw muy message bu ama am solo loolu day wane ne rek yeeyu askan wi ak le président Ousmane Sonko toujours si dynamique bi ñu nekk mooy ne changé mooy doxalin bi nga xamante ne moom mooy politique askan wi gannaaw bañ la falee falu ñu la ngir nga ñëw politique dañ la fal ngir nga réglé leen seen i am doxalin bu bees ñu gis si seen njëriñ kon loolu moom mooy woote bi président Ousmane Sonko woo la nga xamante ne moom mooy maire bi ñu seeti woon ñu gis ay témoignages tam si maire bi ba ñu ñëwee ay nit ñi nga xamante ne bokkuñu ñoom parti ñu seede lu rafet noonu mooy ne doxali na xammeewul ko bokk ñëpp ba sax ñu naan ku nekk day jàpp ne moom moo ko loolu day waneen taxawaay bi nga xamante ne moom mooy doxali bi la nga xamante ne moom kon loolu la ñuy woo li ñu bàyyi leen ngeen dund li nga xamante ne moom mooy ambiance caravane bi le président Ousmane Sonko nag ba muy ñëw woowul kenn ñëw na visite ñi ñu yëg nañ ne mi ngi ci maire bi ñu génn fekk su ko ñëw saafante moom mi ngi ñibbi ko moom wax dëgg yàlla kenn mënu ci kenn mënu ci dara comme nam koy waxee su demoon sax buntu kër le président Macky Sall nit ñi dinañ ko bu fekk kon boobu ñu ñu ko moom kon leen ngeen dund ci la ñu ngi gol ci président mi ngi ñëw ci sa bonteeg militants yi ak sympathisants yi de la commune de Golf Sud. c'est beau comme ni ko Diallo doon waxee oh que c'est beau oh que c'est beau comme ni ko Diallo doon waxee on lui fait un petit coucou au passage Ibrahima Diallo comme à la voix d'or borom gu mun na def. nous a manqué aujourd'hui, mais il sera là probablement demain. nee nañ Diallo su fi nekkoon danaan c'est exceptionnel waaye tey Diallo nekk ko fii malheureusement. voilà comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi fi ci golf sud di waaj a dugg Parcelles Assainies waaye dañuy delluwaat base ndax euh, visite bi jeex na wante xam nga nit ñi mënta ñàkk ndax Ousmane Sonko fépp mu jaar xale yi topp ko mag ñi topp ko. dax dañoo am cofeel ci moom dañ ko bëgg te dañoo am yaakaar ci moom suñu xel day dem ci patriote yi nekk ci kaso bi ak bépp nit boo xam ne dañ tëj parce que injustice le régime bi fi nekk di doxal di xalaat suñu waay Azoura xam ne ndeysaan fii la doon toog di téye drapeau bi di ko ci kaw ñu si am mbégte tey ñu nëbb ko jant bi ñu ngi koy ñaanal mu génn ci tolof tolof yi mu nekk ak bépp sénégalais bu ci nekk. donc fii mooy génn nañ Golf Sud dugg Parcelles Assainies xale yi nee soo ko laalee dinañ la dóor. donc ngeen a dund en direct ñibbik Ousmane Sonko ak son équipe gannaaw ba ñu demee seeti maire Golf Sud di Khadija Mahécor Diouf di fàttali ko ndeysaan Azoura fan yi rek mu ngi doon def live di wane pare-brise bu gendarme yi toj ci oto Ousmane Sonko li nga xam ne moo waral tey gars yi lancé ngir ñu utal Ousmane Sonko une voiture blindée nag patriotes yi ñoom ñoo ko engagé te ñoom dañoo jàpp ne sécurité Ousmane Sonko dafa am solo lool ba ëpp sax solo seen sécurité ñoom moo tax alal bu ñu am rek def ko ci euh, ñooñu kenn amul seen fay ndax képp kuy jël ñaxam lu tuuti tuuti lu mu bëri bëri di la ko jox ngir yow nga am jàmm yaakaar naa ne kooku dafa fu mu la teg fu sori te kañat bi moo ngi continuer c'est l'espoir de tout un peuple c'est l'espoir de tout mooy ndenkaane mag ñi du yaakaar xale yi di ñaanal tamit suñu frère Hannibal Djim nga ne moom moo doon lever fonds yi Kopar Express nga xam ne dañ koo tuumaal ngir lan fexe rek ba pare Express wala boo cagnotte dootul amati waaye ñoo ngi nax seen bopp Hannibal nga xam ne dañ ko placé tey sous mandat de dépôt. képp ko yàlla yëkkati nga yëkkatiku nit ñi bëggale seen bopp loolu moo dal président Ousmane Sonko ci ndaw yi Sénégal loolu nag may yàlla la kenn mënu ci dara nit ñi ñoo gis ku doy état bi ñoo ngi xoqatal Ousmane Sonko ak ñu mu àndal yaakaar ne loolu mën na baare la route au futur président du Sénégal incha allah président Ousmane Sonko lépp lu ñu mënti def tëj ay doomi jàmbur xoqatal ay doomi jàmbur taxul na xale yi dañ koy gën a bëgg xale yi duñu ragal ndax dañoo gëm. loolu yàlla moom moo koy def si nit donc nañu ko ñaanal yàlla ba pare di ko gunge saa su ne comme ni ko xale di defee nga xam ne kenn waxu leen ñëw leen kenn waxu leen Ousmane Sonko moo ngi fi waaye ba ñu ko yëgalee seen bopp ñoom ñëpp mooy ñëw ànd ak cortège bi di ko gunge muy ñibbi wante am na ñoo xam ne tey suñu bëggoon mobiliser même bu fekkee ñetti nit la ils sont obligés fay leen. wante xam ngeen ne xale yi kenn fayu leen xale yi kenn sax yëgalul leen. moo tax euh, yi ñu jëm certes dina métti loolu waaye nañu bàyyi xel ne yàlla ñu ma àndal moo ñu endurance donc endurance rek dékku rek fas yéene jàmmarloog ak ñu ñuy jàkkaar lool ñoo ngi fii ci diwaanu parcelle di waaj a yegg cinéma di leen fàttali ne Ousmane Sonko dafa ñëwoon fii ci mairie Golf Sud ngir waxtaan ak waa mairie bi rawatina. ak maire bi fi nekk di Khadija Mahécor Diouf nekk ni ñoo ngi ci yoon bi di ñibbi waaye xam nga ni Ousmane Sonko fépp fu mu jaar xale yi génn mag ñi génn ndax dañu ko sopp dañu ko bëgg loolu yàlla moo ko ko may donc ñu bàyyi leen ngeen dund ambiance bi am fii ci diwaanu Parcelles Assainies ndeysaan am na benn waay ji nekkoon ci salle bi dafa ne sang bi kan moo koy gis di ko bañ maanaam sama xel xanaa nga bon rek ndax kii ku baax mënu koo bañ ndax kii mayu yàlla la am ndax kii lépp lu ñuy wut ci nit ci jikko bu baax am na ko ba pare ne jox naa sama bakkan askanu Sénégal askanu Afrique ngir mu baax su ko neexoon toog impôt et domaine teg laay di laaj xaalis comme yenn ci seen morom yi di ko defee ñenn ci moromam yi daan ko defee waaye déedéet il est sorti de son confort ñëw ànd ak sénégalais yi Ousmane Sonko génn na c'est exceptionnel. c'est exceptionnel Ousmane Sonko fii ci diwaanu parcelle nga xam da daf fi doon jaar rek waaye xool leen mbooloo mu takku mi ànd ak Ousmane Sonko gars yi ma bàyyi wax Ousmane Sonko may wax président Ousmane Sonko lii dafa rafet lii dafa neex nuyu leen ko nànk bala ngeen koo daaneel. man Sonko ma ngi fii ci diwaanu parcelle ci kawam Golf Sud xale yi génn mënu leen nuyu mënu leen nuyu ndax yëg-yëg dafa fort il est en train d'échanger des poignées de main avec ses sympathisants imaginez lii visite à l'improviste kese la xool leen fi ñu yëgle woon nu muy mel kii mooy Ousmane Sonko dénkaane mag ñi yaakaare ndaw ñi kii ñu bëgg a fal 2024 incha allahu rabi mu si suñu président fas yéene suqali Sénégal su ko defee di ñëpp bokk ñëpp mën see jot Ousmane Sonko c'est exceptionnel. mu jaar bàyyi fa ay trace fépp fu mu jaar mbooloo mi topp ko loolu mayu yàlla la ku mën na def ku mënul na bàyyi loolu rek moo ci am waxi soxna Batoor neex na leen mbëggeel bu nit am ci moom dara mënu ko fay yëg-yëg bu nit am ci moom dara mënu ko expliquer li leer ba leer mooy nit ñi suñu la bëggee dañ la koy wan suñu amee cofeel ci yow dañ la koy wan waaye suñu bëggatul it dañ la wan waaw yéen a gis noonu fii ci diwaanu Parcelles Assainies unité 3 nga xam ne romb rek la def waaye teewul teewul ni nit ñi dañuy génn Sonko yàlla moo ko may ku nangawul tamit soo mënee nga def donc lii doxantu kese la woon dem mairie parcelle du moins mairie Golf Sud président Ousmane Sonko fii di romb Parcelles Assainies yi jógee Golf Sud war a delluwaat këram di nuyu les Sénégalais de ya ndeysaan nga xam ne ils donneront tout pour teewee mbir yu mel yu ni mel ñoom ndeysaan nga xam ne lépp lu ñu xewle ñu def ci seen alal ndax bëgg senegal ndax bëgg Afrique ndax saa yoo génnee dëkk bi dem ci yeneen dëkk yi da gis ne ñeneen ñi ëppale wuñ ñu lenn lu liggéey moo tax suñu gisee président Ousmane Sonko ak projet bi mu teg dañuy bëgg. am yeneen dëkk yi am seen dëkk moo tax ñu tànn ko président Ousmane Sonko génn safonteeg askanu Parcelles Assainies c'est beau lii dafa rafet lii dafa neex lii daf koy faral di wax ne mënu ci dara mënul dara ci li ko nit ñi di toppee fu dem ñu topp ko wootewul yëglewul waaye nit ñi dañ koy topp saa ñu yëgee ne moo ngi fa loolu yàlla moo koy maye di ko ñaanal rek borom bi defal ko taw féex musal ko ci pexey noon te may ko kattan ba ñu yeggee ci 2024 ñu jël Sénégal teg ko ci yoon ju jub saafonte bi xale yi di saafonte ak seen Sonko loolu mbëggeel képp la te mbëggeel dafa fa am bis bu ñu koy fàttali yenn saay lii la wax. Nul ne peut faire quelque chose contre la volonté d'un peuple. Le peuple sénégalais a choisi, en tout cas la majorité du peuple sénégalais a choisi son camp, celui du candidat de l'espoir, du changement. li ñëpp bokk ñëpp dañ ci war a jot xam nga ne xale yi dañuy topp di dox. di daw di sonn bul xam fa la ñuy ñibbiwaat wante seen xel yëpp nekkul ci loolu seen xel ci lu mu nekk jamono ji mooy ànd ak seen leader Ousmane Sonko ñu leen ambiance bi ngeen dund ko fii ci parcelle di dox di ñibbi dégg xale yi di wax noonu kenn fayu leen dañoo engagé loolu nag lu leer la ndax kenn sax yëgalu leen donc Ousmane Sonko génnaat na ngir saafonteeg ñoom waaye lii dafa rafet li dafa neex mbëggeel ca xol sax donc mbëggeel jarul jaay. mbëggeel bu sincère entre président Ousmane Sonko et la jeunesse sénégalaise yàlla moo ko ko defal. Come on.

donc dañuy bàyyi may camion bi droite bu baax comme ça ñu mën a continuer xam nga dañuy faral di wax patriotisme mais le patriotisme ça se cultive dañu koy jàng xam ko ba pare di ko roose niñ koy roosee nag mooy xam li nga war a defal sa réew te xam sa réew li muy xaar ci yow ndax ñun ñëpp nous avons une mission suñ mission mooy ñu naatal suñu Sénégal naatal suñu Afrique loolu nag bépp ndaw daf ko war a xam ba pare di ko jëfe bis bu set moo tax ndaw yi di lañ gën a ñaax rek di wut xam-xam ba di def ay jëf jëf yoo xam ne day amal njëriñ sa askan jëf yoo xam ne day amal njëriñ sa dëkk ndax loolu mooy tax nga doon aji bëgg réew réew da nga koy bëgg da nga koy sopp ndax mooy sa kër ndax tey jii senegal su yàqoo ñun duñu nekk si jàmm waaye su defaroo ñun ñëpp danañ nekk ci jàmm donc ñun dañoo am défi defi bi mooy defar suñu dëkk ba ñun lu ñu dund ci lu metti suñuy doom ak suñuy sët duñ ko dund loolu nag képp su ñun dafa a nekk mission ci yow moo tax nañu gën na wut xam-xam di wut alal bu leew ba pare di développer ay jikko yu rafet loolu mooy naatal Sénégal dimbale Ousmane Sonko ngir bis bu jëlee réew mi ñu mën a ànd ak moom defar Sénégal ndax kat defar Sénégal nekkul Ousmane Sonko képp moo ko ma defar de day ñëw toog indi ay jikko yu baax indi ay jëf yu baax gouverner par l'exemple ñun tamit ñu ànd ci ak moom di defar di defar jikko yi di defar xel yi di defar xalaat yi di jëf jëf yoo xam ne bis bu set tànk bu ñu teg rek day nekk tànk boo xam ne day jëmale suñu askan kanam donc loolu mooy suñu sas ñun ndax mag ñi kat desaleetuñu dara de ndax ñoo ngi joxe seen xaalis ñoo ngi joxe seen xalaat te def nañ li war a def waaye ñun ñoo ci des ñun ndaw yi moo tax képp ku ci amul carte d'identité demal wuti ko képp koo xam ne inscrit sur les listes électorales fexeel ba bokk ci da nga taxaw tem sécuriser lépp loo xam ne day sécuriser suñu projet donc loolu mooy message bi ma leen di lancé yéen samay mbokk jeune ndax kat réew su defaroo ndaw yee ko defar ndeysaan ak centre commercial bi gis ngeen génn nañu seen photo président Ousmane Sonko sénégalais dañ ko sas ndax yaakaar naa ne mosu ñoo dañ ko sas ndax fekk fu mu dem xale yi topp ko di ko protéger lépp lu mu woote xale yi ñëw saa yu laajee xaalis nga leen a cotiser leen ngir ñu def nemmeeku tuur gars yi génn génne seen alal joxe loolu sas la sas bu rëy rëy moo tax moom xam na ko te ñi mu àndal ñëpp dañ ko war a xam te xam ni te xam ni kenn du fooyee sa askan askan cër bi la jox danga ko kay delloo sinon bis dina ñëw mu toroxal la askan espoir bu mu am ci yow waroo ko trahir ndax bës dana ñëw à l'heure du bilan comme tey ni mu amee fii gars yi danañ la wàccee folli la fal keneen te soo ci amee loolu rek sax nga jël moo tax kenn du fooyee avenir u kenn du toroxal askanam Les populations de Golfe Sud continuent à accompagner le président Ousmane Sonko. Le maire de la ville de Ziguinchor était aujourd'hui dans la commune de Golfe Sud pour euh, une visite de travail à son homologue maire, Khadija Maï maire de la commune de Golfe Sud. Après un échange après des discussions entre le maire, entre de la ville de Ziguinchor et de la commune de Golf Sud, les populations des parcelles assainies de la commune de Golf Sud ont décidé d'accompagner le président Ousmane Sonko on lit à travers ces jeunes un engagement fort, une volonté ferme à l'aboutissement de ce projet. Comme nous l'avons dit, ndaw ñaa ngi continuer di di daw di dox di gunge ki nga xamante ne moom mooy le président Ousmane Sonko ci seen engagement ci seen taxawaay taxawaay ndaw ñi dafa am jàngat bu mag a mag ci am wala lecture bu mag wala lu ñuy liir ci seeni kanam ak seeni jëf mooy ne fulla gu sëkk lañu àndal ci lan ci seen bëgg-bëgg seen bëgg-bëgg mooy lan mooy fal le président Ousmane Sonko en 2024 te ndaw ñi niñ leen gisee nii loolu ku leen ko nar a xañ ay loolu ku leen ko nar a xañ ñii daal pare nañ kon gunge bi di wéy gunge di bu wéy du ñàkk yéen a ngi de kàddu yi si suuf di woy boo ko laalee ñi naan sonko sonko sonko ku nekk ak li nekk soko xol